ba tey nga gis ne uh, am na benn hadis yonent bi sallallahu alayhi bu muy ne képp koo xam ne julli nga ci man man sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ba koo xam ne julli nga ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon képp koo xam ne julli nga ci man fukki koo xam ne julli nga ci man téeméer yoon yàlla julli ci yow junni yoon te xam ne julli nga ci man junni yoon yàlla sawar gis nga mafhumu boobu ak mat boobu ma ko ci njëlbeenu xasida moom itam ba mu jeexale loolu uh, wane loolu mooy fi muy waxe mooy yow yàlla yaay ki nga xam ne képp ko xam ne julli nga ci moom julli na ci yonent bi sax beneen nga julli ci moom fukkan ak ñu waxee yaa man yuwasilu li fi asra bi jaax yi yaa man xamaa xan sa ya mooy yow suñu borom képp koo xam ne nga julli ci moom téeméer yoon ak ñu waxee nihma safihun man alayhi mi ata alfan mi ata salla ihtawa alfan tafoq ata mooy képp ko xam ne julli nga ci yonent bi téeméer yoon yonent bi suñu borom ci yow junni yoon ak mi waxe waxu ji liman xalihi alfa salal muna bu fee daan yul fa te mooy képp ko xam ne julli nga ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam junni yoon suñu borom araamal sa yam sawara dugal la